asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillahi saydina muhammad salallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbi wa salama taslima xanaa yëkkati nuyoo rek ànd ci ak ahli bayti bu maam seydina limaamul mahdi muntazar nuyu aali beyti nabi waa kër Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu bu baax nuyu bu baax a baax nag sunu lépp di sunu kilifa diine ji yëpp jox ko cër réew jox ko cër àddina bi yëpp jox ko du li Seydina Limaamu di maamam de annoncé woon ko déedéet. du li Seydina Isa di wéy juram de déedéet waaye jikkoom yore jikkoy puso di ràbb rek di ñëw rek di defar rek kooku mooy xalifatul am bàyyi Seydi Abdallah ay Thiaw mu Seydina Isa Ruuhullaahi mu Seydina Limaamul Mahdi Muntazar teg ci xalif généraux yëpp ak kilifa aada yi ak kilifa àddina yi dem ziyaar yi ñi ci hôpitaux yi ak ñi ci mbedd mi ak ñi ci kër yi tawat yal na leen yàlla fajal boppam bi jaay Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi caabi féete ginnaaw na yàlla teggi na toowu ci ñoom mooy jubal ku ko neex yàlla leen jubal jubal ñu jubalal leen jubalool ñu te teg ñu ci njub bi jaay rasulullahi sallallahu alayhi gor ñu baax ñi nekk ci réew mi nangoo daan seen doole ngir teraanga ngir lu ñu yóbbu ci njaboot ak ci wayjur ak ñi dem bitim réew ñoom ñëpp yal na yàlla sunu boroom xëcc leen la ñuy wuti mu daroog ñoom ñàpp te bañ a tàqalikooti ak ñoom bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi tey ñu am lu xam ni fii ci kër gi ci émission tabala barki démb lañ daral waa kër maam Cheikh na Cheikh Saadu Abi mi Cheikh Turaat ni xutbu za zamaani tey ñu ñëw dalal ñi nga xam ne ñoo war a dalal ñépp ndax fii ñu toog tuddul almadi lii deen tuddul almadi haja sandong tuddul almadi almahdi la tudd wax naa ko sànq ni leen fii la loolu woon junni at Baye Modou Mbuub xaarixu wax ne walaysa fi ummatin izoda an min rasulin minhum fi bawla lan yaa fa ay mi waaye dafa dem ba ci biir mu wax ni maa mi ni daay li aza nax mi xat su ni xa si waa limaamu saw wi dalalati nujoomi tey ñu dalal nag sunu waa kër maam Seydina Limaamul Mahdi Muntazar maam Cheikh Mamadou Lamine Dramé bu axalulaay sa ndànd nii bu ñëpp melee ni moom safara gent lu tax mu ñu ñëpp la bokkal waaye fexe na ba bokk ba te génnul ci kenn li njabootam saxoo ak fi mu teg njabootam ten du dugg jàkkate yoroo njàpp mu dàq sant yee dàq tur yee dàq lépp juddu ak lépp ne na ñëpp di sol perkaal mbaa manikaan waaye ñëpp nañuy wuyoo laa ilaha illa allah la ngeen cay teg na doon seydinaa muhammad rasulullah sallallahu mu indi lool lépp nag sellal lool gone yi mu dugal leen daara ñeme loo leen diine ji ci góor ci jigéen magum laayen buy dox ma ngay ma ngay sikkar buy liggéey ma ngay sikar bu nekkee ci kër gi mu ngi sikar muy góor di jigéen mu ni bu ñëpp melee ni moom safara gent ñu ngi ko luy gental safara mu ni zikrullahi baatu laa ilaha illa allah tey ñu am gan gu mag maag yow du ñu sori Hadj Abdoulaye lu ñu bàyyi laay wax bala ñu ñëw ci moom lan la Mouhamadul Bichri wax Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. kayfa tarxaa ruqiya kalandiyaay Momadou Lamine Jarna waay. sallallahu alayhi wa sallam. kayfa tarxaa ruqiya kalandiyaay يا سمان متى ولدها يا سماء إنما مثل صفات كالناس كما مثل النجوم الماء أنت مصباح كل فضل فما دست ذروي لأن دعك الأدواء لك ذات الغروب من عالم الغيب ومن هال آدم الأسماء لم تلل في دمائر الكون تكتار làkkewum waatu walla baaw Mamadou Abdoulaye a leen gën maamadat fadratun min rusulila basaran xawma bi kalan bi aaw tartabaha bi kal usuur wa tasmo bi ka alyaw bada alyaw wa bada lil wujudi min ka karim min karim aba'u kuramaw منسب تغتب الأولى من هلا هلدت النجوم الجوزاء خبذا عد سودد وفخار تفي اليتيمة الأسماء يرتي محمد ومخير كسمس منك مدين أثرت أنه ليلة الخراء ليلة المولى الذي كان للدين أين سرور بيوم وزوى وتوالى المساقات في أنغد ولد المساقة الخناو وتدا إيوان كسرى ولولا آية من كما كنا البناء الفضل الذي ذرفت به خوا من لخوا أنا خملت أخ لا إله إلا الله mada awa nabi nu wasaaw yow ma naa la topp naa la yow ma naa la ràññee naa la yow ma naa la bëgg naa la yow ma naa la dégg ma ca saam maa la def ngay sama ngir yow ma naa la bi wax inna tabi min faxaari malam tanaa afdali mimma قبلت خبر مريم عذرا سمتت الأملاك إذ ودعت وسفرنا بخولها سفاه رافعا رقص وفي ذلك رفع إلى كل سودد إيماء رامخا ترفع سما ومرمى عين من سانع العلوم الله وتدلت زر النجوم إليه فأدى بدوئها أرجاه وترات قصور قيصر بروم يراها من دار البرخاء ويعبدت في رضائهم معجزات ليس فيها عن الغيون خفاء حاج عبد الله képp ko xam ni am nga muhabba ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam su la déggee xam ni njàng mi rafet na leer na maxrajal ruuf bi set na wicc ñoo ngi ñaan suñu borom barkeel sa lépp du ko mu neex nag nga way Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy tànn ñu koy way waaye maag yow du ñu sori benn yoon dafa am lu xam ni moom lañ leen xamee tawxidullahi zikr jox ma ko muhammadu rasulullah la ilaha illa ahmadu rasulullah la ilaha illallah ahmadu rasulullah بالسيئات ويكسر الخزنات ومن كثر الخزنات وخلت سيئاته دخل الجنة إن شاء الله لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا وإن الأماكن تذلكم يوم القيام لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا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 توحيد فلا tax wallaahi jami waaye waylun li munkiri wa sabadan wa doo ma faala yaa la ilaha illallah am riwaaya ñëpp jooy nañu ku Seydina Limaamu ji sa maam sa xol tooy na rawante na nag ki nga xam ne mooy généralam waaye baayam yëpp nangu ni mooy généralam jox ko cër bi ko mooy bàyyi njin mu sëñ Abdalaahi baayam yëpp rakki baayam yëpp ku mu doon ak ci bàjjanam yëpp ku mu doon buñ ne bàyyi ngeen nga ne ak a baax bàyyi ngeen ñu ni sunu xel dal na lool ci moom lu waral xel dal ci moom ku ko mag di magam yi Isa xelam dal na ci moom rakkam yi xel dal na ci ñoom taalibe xel dal na ci ñoom ay baayam ñoo ko ni yow la yaay général bi mat nga ñu tànk mat nga ñu loxo mat nga ñu kàddu mat nga ñu lépp loolu ku ko bëgg am ku ma mën a doon ku ne da nangu ñi la jur jur la nangu kilifteef nangu toppe du ñu sori maam Fatilaay maa ngi lay ziar waaye jiital nag ci ziar bi sa bàyyi jiital ci say mag jiital ci képp ngeen bokkal Seydina Imaamul Mahdi Muntazar nuyu ñi nga xam ne nag boo nee Seydina Limaamu ñuy ay mbokkam waa kër Modou Assane Ndoye ajaana fi Ndoye ngi toog ak ku mu bokkal ànd ak ñun ci émission bu mag bii di tabala waaye yamuñu fa këri diine yépp ñoo ngi toog ànd ak ñun kon diine jaa ngi diine ji rekk a am lii ku dul diine ji mbaa lu dul diine ji mënoo am lii maa yow de jarul ñuy sori seen naa maamu nee na sama taalibe buy génn àddina maay ñëw ci wetam taxawu ko nu koy taxawoo réew lu leen te déglu tuut ma nettalee ci ay waxam limaamu laay mi tax nu am nu gëm koroy ci ay sunam samsul huda baxrul buxuuri mooy limaamu laay waa mew nga neel wi dam bereew mi ceebo feeñ na ci ñoñam nan jaajëfal limaamu laay ndan keew ma njool ma raw na ko nammal nu lem gi joonu ko ndiyoor ga kuy taalu bépp limaamu laay gëmal nga woolu ay waxam nga jëf ya ba dem sunuy matal di dem këram alaaj Cerno Njaay limaamu nee na taalu béem buy sukuraat dinaa fa teew koy siyaar ni ab xarit siyaaru alayhi wa sallam Seydina Limaamu Laay nee na malaaka may rucci saru danaa ko xool nam kay rucce te néew ma xool Limaamu toog di ko bégal ci aw melom Seydina Limaamu Laay nee na càngaay la it dinaa fa teew càngaay la it dinaa fa teew jullee ga it dinaa fa teew te néew ba day jëmmam Seydina Limaamu Laay ne bu nu bawoo te jàkka ja mbooloo ma dox si kër Seriir Limaamu jiitu néew ba xool ca aljanaa Sérif Abdoulaye nee na bu nu yeggee ca xabru ba ba ñetti góor dugg ca biir ñeenteel ba mooy Limaamu Laay te néew ba janoog jëmam Seydina Limaamu Laay nee na ca biir pax ma ak dalal xelam borom meteeli oor yi mooy taxaw tib taalu bi maami Baay Ñiŋ Caw Laay kuréel bopp bi kurél gën leen a neex baadal zikar dal di ni jaar si sa baay laay nee na gaañooñu danoo rafet di xeeñ lu neex bawoo ca kaw ca ndigalal xaalixu naa ñu leewu neew ba yóbbu firdaw si kanam Idriss Alaay samaam neex foofu mooy palaas ba ngeen di xaare bis ba yàlla yi wallu buutu ba ku nekk bax mu diw turam resam wa moo fay sunu palaas ñu naan ca maaw ku nekk door di dem këram bu nu sangoo ca kaw sara nooneel ya foofu lay deñe mbañante foofu lay deñe soppante daw sunu yaram seen alimaamu laay nee na wildaan yi ñooy mu xalla doon ñooy sañse saytu ay palaas di teeru gaaya daan zikar di roy rasool ci ay sunam Seydina Limaamu Laay nee na jigéen ñi aljana nga toog sañse ñu ah! teeru seenu gaay ñu takk si ak képp kenn xam ni jigéen amul morom waay baay laay ba ngeen leen ba ngeen di tabbi aljana ba toog jalal ya faatema ba fàtte yàlla la seen borom waaye baay laay ne bu mujj am li ma wax du ngeen di jaamu rabbana te topp sunni Mustafa ku nekk doona dem këram cey balaay mu ne bu ñuy bu ñuy yóbbu sikar sa jóg maa nga ca biir wallaahi sikar si ban sikar la laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah bisam tàngana lu jiitu dig ba ñaari ay bis mam libaas jiite jullit ña tey korem nga metti na limaamu naan gaaw leen ma àgge jàmmalaay naan gaaw leen ma àgge jàmmalaay ana yaram wa jeex bu mel bun solal ay wër kanam nga taaru na ku daan ku yéene jox bi ab dërëm na andi ma la maay rasul na mu wax xarit ba Seex Jibriilu xawsu na jàngal xutaab yi muy duraat ci ahlu na feebar ba dëj ko muy sikar di waaj xanaa lu mën a dal war nan xalaat imaamuna guddi jumaa ja fukki fan ginnaaw kori ak ñeenti fan limaam génn àdduna jigéen ñe yuuxu saaba booloo di jooy te naa ndax ña du rek ba dem taxaw yor kenn du fi rob bas xaar isa ndax béy ki ma ñetti fan ya metti na ñëw di foon kanam nga naan ko waalidi tibta xayan wa mayitan wa rabbina naa ku daan jaamu limaamu man nga dem kuy jaamu yàlla toog nu gëm xaalixuna Seydina Isaaro wallaay miimun la toog kenn jooyatul imaamuna ba dee jalaat ko mook ma njoon ak xutbuna ma jël limaamu jël isaami xayruna bàyyi kenn sax fii di bel ci àdduna la jël ma njoon ak Babacar mi xutbu na moo jël Isaak bàyyi laan ma doon xutbat na kon kay du teewu seenu daanuwaat xanaa gem Karbala la aliya samba wuute na yàggal fi Abdoulaye yaakaar yàddina yàggal fi Abdoulaye yaakaar wàdduna yàggal fi Abdoulaye yaakaar wàdduna ilaahi yow yàlla yàggal fi àdduna yaakaaru àdduna ku sax fi lool te wér ne mooy xalifuna maa ngi yow duñ sori jox mu jox mu siro yàlla fi yàgg te wér lool yàlla na fi yàgg te wér lool yàlla wéral léppam ndax wóoral nga am fa gaynde faat maa nga nele sëñ Moustapha Xaadimu Rasuul mu tudde ko doom Sidi Mouhamadul Mansour sunu baay Sidi Aboubacar maam Sidi Aj Malik mu tudde doom Ibou Sakho mu bàyyi Limaan Sakho mu Sidi Aj Malik kan la dese Ibrahima Niass mu maam Abdoulaye Niass kan la dese faram fàcce na diine ji fas ko ci benn paso ni leen kat jullit jullitay mbokkam waaye jox ma Cheikh Abdoulaye waaye yow baay Abdoulaye sama fi yàlla kuy mbër tumbi moo ko yore safinatul fawzi miftaaxu saadaat ci saw bi la taxaw di woote ko ca kaw indi muhammadu mahdiyul bariyaati matal na diine ba dem isa ka wuutu gannaaw najlan loo naay ban kënzal karamat damay xalaat maam ni nga mel foofi taxaw ñu naaw la njool ay baa sab taxawaay la yaa fi man Abdoulaye foofu dañ fi ñëw dañ fi dellu si dese yoon wi xat na waaye mën nañ ko yaatal bu ñu nuyee waa kër Seydina Limaamul Mahdi yu Muntasar mënoo tëb Serigne Assane Gueye laay sëtam la El Hadj Saliou Ndion sëtam la sëriñ Moodu sëdun sëriñ Madun Sey borom tawféex woona di la ziar ndey Faatu Ndoy Jóob laahi fii ci Yoff mu Seydina Limaamul Mahdi mi ngi lay nuyu moom it waaye famille maa càngaay waa kër Baye Malick Diop Cambérène ñoom ñëpp ñoo ngi lay nuyu la jonge sa baay mu baay raam mi ngi lay nuyu wax naa la sànq ne la waa kër yaaram jën yëpp ñoo ngi lay nuyu papa Seck maire wash la mi ngi lay nuyu ak jigéenam day laahi waaye mu Haj Ibrahima Dieng bil maam yàq jeng ak njabootu Ibrahima jeng bil yëpp ñoo ngi lay nuyu waaye nag maire ba nga xam ne moom surtout Thierno Mbaye Sylla la maamam ne ko xaali ndakaaru nekk imaam raatib bàyyi laay feeñ mu ni feeñ na ki ma doon xaar dem na kooku mooy Ousmane Doy maire wu Gueule Tapée Fass Colobane moom it mi ngi lay nuyu ay di Jóob mi dambee mi Cheikh Matar Diop mu Cheikh na Cheikh Saad bu dambee Cheikh de Calo mu Cheikh na Cheikh Saad bu ak càmmiñam El Hadj Cheikh Maxeet Diop mu ma samba Diop ñoom it ñu ngi lay nuyu waa kër Baye Moussa seen ak yaayi Seynabou Niass ñoom ñëpp ñoo ngi lay nuyu waaye bul fàtte ni Adja Cheikh Aysatu Sarr mu Cheikh Sidaati ni mu Cheikh Taalibi mu Cheikh na Cheikh Saad bu mi ngi lay nuyu maa ngi yow amuñu lu ñuy wax joxaat ma sër yow dalaay damay xalaat maam ni nga mel boli taxaw ñu naw la jool amoo morom mbaayam ay ma ji nga juddoo Idrissa sa baay fu doomu soxna musu fanaan dem nga fanaan fa la mu fanaan boole sa cëru ko song nga daan amoo morom baay Abdoulaye boole sa cëru ko song nga daan baay diinu sa baay mënoon nga woote nguur ba fa ma nit ñu doon say dakk di daw di la dawal ngir bëgg yaa faati sa baay konoon nga xëy woote sa kër ñu lay wayal maam ma fajar ndax ku la xam moytu sa mer amoo morom baay Abdoulaye ndax ku la xam moytu sa mer ay taseen sa baay bañ rek kunu ca balaay ci gël tàppe moom it mi ngi lay nuyu mu dong lool amoo moroom baayam ay baay may nunu naan ndax man nga ko fexeel nu àgg sañ wax leen may nunu naan ndax man nga ko fexeel nu àgg sañ nga ko jébbal nu njiit ndax miin nga ko amoo moroom li wér te wóor ku am keneen jëlal ñu jël baay Abdoulaye Zil Kamal am sa ngërëm nga tànn sey bagaan sun ànd bi dem ba dinaan amoon rek ni Njañ Jóob meru Mbambilor nee na kontaan ci yow Momar Siis meru cinquante kilomètres cinquante kontaan na ci yow sa papa Modou Xulle nee na safoo la lool waaye El Hadj Moustapha ak soxnaam ndey Fatou Lekor ca Tëngéej ak Adi Sène promoteur immobilier ba nee na kontaan nañ ci yow lool waaye nag famille Mamor Mbodj fii ci HLM nee na ñoo ngi lay bëggee waaye Haj Mamadou Lamine Niang moo ajirin walan Sarr ak soxnaam Adja Cheikh Yaman Albis ñoom it nee na ngi lay bëggee bu baax a baax Astou Dia borom këram Omar Ndoye di sëtu Seydina Limaamu commissaire la woon fii ma nga ca États-Unis mi ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar ci àjjuma ji maag yow nag mënuñu tàggoo déedéet parce que ñu ànd mënuñu tàggoo kon dafa am ku baax ku fi nekkoon jël juddoom jaay moo loo jaayee judd bi mu ni taribee yàlla ci boroom kër gi ma am muy naj lu Seydina Limaamul Mahdi Muntazar maamam déclaré ko woon te ganeegul àddina nii bis bu jotee buntëb nekk lum ku ma xamuloon di nga ma xam ku ma dégguloon di ma dégg ku ma bañ a dégg di nga ma dégg monsieur Abdoulaye Thiaw Laye mu amoon nag ku baax gën ci taalibe yi ci mbokk gi gën ci miskini yàlla yi ràññeewul benn tarixa ngir jeex ci sëñ Abdoulaye ngir jeex ci maamam Seydina Limaamu te digganteem ak Seydina Limaamu mënoon na li nga wax léegi caw laay dëgg la mënoon nga woote ñu ñëw di xalamal ndax bàyyi ma njoonay maamam waaye Cheikh Omar Foutiyou meññ maamam mu jigéen waaye kooku kan la bàyyi njin nu mu wax ci moom général bi général nee na bàjjen bu baax moo di sëy boo doomi bàyyi ma njoon ñalamba je bàjjen bu baax moo di sëy na bo doomi baay ma njoon mooy jeey Abdoulaay mooy njukkal xalifa be um nga lamb ji général way na laali njoon yal na feeroog yërmande gërëmam yaa fàtti caw sa baay Abdoulaye Thiaw laay gërëm na ko yaa Faati Jaw sa baay baay Abdoulaye na sa baay Njin Thiaw feddali naan bàjjen bu baax moo di sëy na boo doomi baay ma joon jeey Abdoulaye mooy jukkal bee um nga lamb nee na ngërëm lu wér sargalu it moom la ji aboo boole cay dërëm adiyaal ko Abdoulaye um nga lamba ji général nee na subral la hunna maa ngi sant ku i jee Abdoulaye teg ca ñaan gu doy muy ngalam ba aljana um nga lamba jee ci ñaan gu doy muy ngalam ba àjjana. général nee na sukran la hunna. maa ngi sant ku yi. yee Abdoulaye. teg ca ñaan gu doy. muy ngalam ba àjjana. um ngalam ma ji. waaye nee naa ko déglooti leen. Ah. bàyyi ceer loxo. Mamadou Lamine Laye ma jaaxal ak Mamadou Makhtar ak Mouhamadul xaw fan laa jëm ak ñoom ak Seydina Limaamu seen maam kon lan ngay tàggoo dégloo leen tey ma way fi gor ay ta seena baax taaw Abdoulaay mooy goroom ay seen ma um na ma jee dégloo leen tey ma way fi gor ayta seena baal mooy gorob ay seen ma njoom um nga ci bay seen <laughs> li may tàggoo mooy ñaanal sëriñ Ablaye mu yàgg fi jallaay nee na si yow trop wallaay bu baax ñu ngi koy siyaar bu baax moom mi nga xam ni digganteem ak Seydina Limaamu day dal ci baayam baay raan rek dem glissé. wallaay wallaay nee na moom mi ngi bég ci yow. wallaay ndeysaan jigéen ña ñëpp nag. Mhm. ñëpp waa kër yi bu seenee ñëpp. duudu laa ak ñëpp bég nañ ci yéen. wallaay ndeysaan looy tàggu. ñi ngi sant yàlla bu baax a baax. Mm. di yàlla yëg doole alayhi salaam. ñaanal Seydina Baye Abdoulahi yàlla nañu ko fi yàlla bàyyil. mu yàgg fi lool te ànd ak wér. mu ëmbaale njabootu Baye laay gi toftalu ci ginnaawam yëpp. amiin ak lu bay góor ñaak jigéen ña. amiin mag ñaak ndaw ña yàlla na yàlla sàmm leen aar leen wattu leen yiir leen dolli seen sutura ci barke bàyyi laay war mën yàlla isa di ñaanal mboolem julliti yàlla yu nuy seetaan boo xam ci biir réew mi la wala ci bitim réew ñaan bu baax yàlla na yàlla dolli jàmm ci kër gii di TFM allahumma seen sutura ak seen xéewal ci barke Seydou Abdoulaye allahumma sant yàlla bu baax a baax ñaanal Baye Abdoulaye mu yàgg fi rek ndax wax naa ni sunu lépp rek dana ko wékk ci moom incha allah fu mu jëm rek yóbbaale nu fa laka Mamadou Laye Ndiir waxoon ni ko gaal gi buy dem yóbbaale nu foofu mën a jëm yóbbaale nu waaye ñu ngi ñaan suñu borom moom Serigne Ablaye Thiaw ñi ngi ñi ngi wékku ci moom mu jotale nu ak sunu boroom waaye doxale nu sunu diggante ak maamam sunu mm-hmm. diggante ak baayam mm-hmm. ñaan sunu borom yal na yàlla yokk mm-hmm. ak kiiraayam moom Serigne Ablaye ci barke Baay Laay moom sant bu baax a baax a baax a baax mboolem ñi nga xamante ne si bi yàlla dogal na ñu nuy bégee di safoo ci diggante góor ak jigéen mag ak ndaw yal na yàlla defal ñëpp jàmm. jërëjëf Abdoulaye yàlla defal la jàmm yàlla. allahumma amiin yàlla defal la sutura. allahumma amiin ci ma àndal. di Ousseynou Laye ak Pape mm. yal na yàlla defal leen jàmm. te amiin amiin xanaa rek doomu roowu Seydina Limaamu Tayiru Saar. macha allah walaay ndeysaan. ak soxnaam Marème. ak njabootam yëpp ñoo ngi leen di nuyu. di nuyu mu baax mi. walaay ndeysaan moom. dafa féetewoo maamam. ñu koy nuyu bu baax waaye Ibrahima Thiam teraanga maître Dior Diagne ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax waaye cabalaay ca gël tàppe Assane Ndong na du la bàyyi fenn mi ngi lay nuyu mi ngi lay ziar waaye Amadou jaañ Sosika ñoo ngi koy nuyu bu baax Idrissa Baxa yoxo woote na ca dëkk ba ñuy wax gànnaar ñoo ngi koy bëggee bu baax sama njaboot yëpp ak sama mbokk yëpp meen gañu dëkkandoo xarit ak ñëpp maa ngi leen di di leen ziar di leen wax nag la ñu yem ak yéen ba àjjuma incha allah rabbi di ñaan bu baax a baax kër gi yàlla na yokku réew mi yàlla na yokku askanu réew mi yàlla na yokku te lii indi yokkuwaay mooy yàlla na yàlla dolli jàmm raxas xol yi tàppe ko boole ñëpp ñu booloo bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. solo laay ay laay pey baa